mu ay eh, kàddu yu bàyyi ko ci moom ñuy ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax lii sëriñ Modou seere léegi loolu rekk moo tax ndax ku ne xam na ne xat na ndax dugg nañ ci weeru safar te mbooloo mi siyaare ak daayira yi bari na lool waaye keru ba sëriñ Modou Lo ñëwee ci moom jottali ko ne ko liggéey bi àgg na te lépp sëriñ bi àndoo ko moom sëriñ bi da ko wax ne ko fii ma toog dara bàyyi moo fi lu may liggéeyee Serigne Touba kon nag buñ ma doon teg teg ci puus puus ma ci doxi sax bu tee may liggéey sëñ bi na ko jëmm ji man rek kon loolu moo ñu mu ko defee tey kon Serigne Modou yàgg waa daayira sa sa fiinoot amaan bi nga xam ne yaa ko jiite Serigne bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ci sa yitte ak sa taxawaay ndax bokk bi nga bokk ci Serigne bi. xam nga ne taw féexee sëriñ bi la ak dogalu suñu borom waaye nag doyloo woo ko da nga xam ne sëriñ Tuubaa ci liggéeyal ko rek ci lañuy jariñ moo tax nag nga fëttiku laxasaayu bàyyi sa yitte di moo fenn toog ci dëkkub sëriñ Tuubaa bi di ko liggéeyal ci lii nga xam ne mooy war may dëkk bi ndax ku ne xam ne ne sëriñ Tuubaa mboolem li mu bëggoon rek ñaan na ko ci dëkk bi di Tuubaa te lépp suñu borom may ne ko waaye nag lam waxoon ci jumaa ji rek mooy lii am ci mbiram yëpp daa waxoon ne bu ngeen ko liggéey de malaayika yi dinañ wàcc ñëw liggéey ko kon nag dëkk bi itam li fi Sëriñ Tuubaa ñaanoon ci ñaan suñ borom mu sal ko ci dëkk bi ba wax ne wa maskani salli minal fujjaari wam noon alal ahli bi ma in jaari loolu nag sëriñ bi nee na yow yaa am tawféexi Sëriñ Tuubaa liggéey loolu ci liggéey bi mu la ci liggéey loolu it nee na lii lépp ci sa loxo la sottee kon war ngaa sant yàlla bu baax te santaat Sëriñ te gën a fetli sa laxasaay te wéyee liggéey bi te xam ne day yéege day yéege ceeg tawféex day yéege ngërëmum day yéege ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa kon nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom nga liggéeyal mi ngi ci sa kanam ndax xam na ne bëggoo ci ku la tagg rëguloo ci ku la xas seere Sëriñ Tuubaa képp ngay def ak seere ko ko moom mi ngi fi nekk moom mi fi nekk nag làq nga ci ngërëmam nee foo geesoo da nga ko gis mi ngi ci sa kanam nekk ci sa ginnaaw di ko ànd ak yow bu faw ci lépp loo xam ne lu mu ci war a taxawe la wala lépp loo xam ne dégg na ko te war koo ànd ak yow dana ko rek neen daal bul am dara looy tiit bul am dara looy jaaxle lépp loo xam ne war na ko ci dana ko def ànd ko yow bu faw ndax xam na ni dara jiitoo ko ci liggéeyu Serigne Touba ndax dëkk bi kat Serigne Touba da ko fàggul boppam ñaanoon ni bëgg mu mel ni wax wax wax wax wax nam euh, na bëgg Touba mel ni ak musal ko ci kon nag ndigam yàlla def na nga jug laxasaayu ànd ko mbooloo mii ci yitte ak pëstëf waaye jëm ci na ngeen xam ne Sëriñ Tuubaa moo leen ci gerte kon ñu jeexal foofu kaddu yi di la sant di la gërëm di la ak ñu ko àndal ñëpp. asalaamaaleykum.